cluster programme cluster waaw waaw programme cluster bi ah nee nañ 2018 2019 lañ en place mhm. Hmm? Mhm. Euh, mu cluster secteur touristique mhm. ah bi ñu may laaj fan la toll seen diplôme seen diplôme waaw oui exactement euh, si conférence boobu moo wax moo dem nee nañ tu faisais partie du jury wala vous faisiez partie du jury. <laughs> ñëwal ci garaawul monsieur le directeur <laughs> moi je suis professeur d'espagnol à la base. nous nous on tutoie on va directement quoi. donc euh, le programme cluster. bu ñuy former jeunes yi c'était que pour ñu nekk guide guide guide titulaire euh, ou guide auxiliaire parce que ñoom dañuy wax guide interprète euh, euh, guide conférencier guide accompagnateur mais la réalité au niveau de textes réglementaires qu'on a au Sénégal le le décret qui régit le guidage il y a de guides mooy guide auxiliaire ki nga xam ne BFEM ngay am nga xam Sénégal mun a wax français guide titulaire nga xam ne di nga am BTS wala lisance nga mun a wax français ak anglais wala français ak espagnol nga am beneen langue nga xam Sénégal yëpp loolu la ñuy laaj mais ma leen di tooñ ma leen yéen si salle bi est-ce que ki nga xam ne euh, am na ki nga xam ne mu ngi jàngale ñu ne ma waaw ma a ko yow looy jàngale mu ne ma espagnol lay jàngale ma ne ko bi nga paree sa master espagnol université est-ce que da nga dem dugg classe nga jàng mu ne ma ma ne ko noo def na dama dem école normale. Mm-hmm. foofu la ñu joxe lijaasa bi ngay jàngale. Mm-hmm. cluster bi formation la. Mm-hmm. mais soo paree cluster pour nga mën a exercer da ñëw ministère au niveau de la commission boobu moo lay permettre si satisfait aux aux aux aux de la commission c'est comme ça que tu as la carte man mi di wax guide la 2019 maa nekkoon major mais. jury bi quatorze membres la ministère bi nga xam ne laalee na am na ministère intérieur foofu am na ministère de l'agriculture am na ministère de ministère yëpp dañuy yónnee seen ndaw ñu ñëw jaakaarloo ak yow comme nee nga yow guide nga bëgg a nekk te yow yaa ñu war a représenter fu ñu nekkul yow yaa jëli client bi client bi yaa koy accompagner li nga ko wax lay gëm. Mhm. dañu aussi bëgg nañu xam ndax xam nga Sénégal ndax li nga xam am na dañu lay poser question si Sénégal yëpp. si lépp mhm. la ñu donc c'est des questions comme ça que le touriste pose. donc booy su ñu bëggee am seen carte wax naa leen ko ñëw leen devant la commission. on vous examine. mun naa def examen spécial pour yéen pour ñoom mais ci kaw ñun ñu leer nañu ñoom liggéey bi ñu ñëw def nan nekk liggéey dañoo déposé wu xanaa ku déposé nga mais man li ngay wax nii li ngay wax nii par exemple moom mooy ñëwaat euh, parce que lii lii muy. am na lu mu fàtte yow nga ni professeur d'espagnol. Ah. fexe ba. xam nga tamit lii tax tamit ah. il s'est formé à la je me suis formé. la base a à la base à la base dawul bi. à la base loolu bu ñu ci duggee duñ fi jógee. non non non ndax doyen doyen dinañ ci wax. Birame